ak euh, ak ak problème yi ñu jànkonteel mm. xam nga euh, entre quatre-vingt-dix et deux mille euh, c'était la lutte pour l'alternance mm. nu mu tudd l'amélioration euh, du système de vote les questions de fichier et mm-hmm. cetera ñu ñëw Ablaye Wade ñëw en deux mille voilà indi euh, gën a élargir le le le champ des libertés. Mm-hmm. mais gouvernance Ablaye Wade ngeen song ko euh, ci euh, li nga xam ne moom mooy la gestion euh, des des des des deniers publics. les réformes constitutionnelles yoo leen doon jàpp ne elles étaient mm-hmm. déconsolidantes mais Wade problème am moom ak waa njabootam la y avait une mise à mort de ses fils qui mm-hmm. était trop ambitieux qui avait les dents trop longues Euh, première fois Idrissa Seck ensuite euh, Macky Sall mais peut-être moins de problème avec euh, l'opposition bien qu'il y en avait parce que opposition bi am na ay yu mu ay évolution yu mu doon euh, réclamer ñu ñëw ci Macky Sall euh, tout le monde est content même yow mi ñu ne la patrie avant le, le parti. avant avant avant le le, le parti Euh, vers 2015 problème politique yi commencé. Mm. après avec Karim Wade avec euh, avec avec avec Khalifa mm. Sall mais ba tey dañ dérive yi. état bi moo daan teg des des des des actes. Mm-hmm. Euh, état bi lañ doon parce que Karim mm-hmm. Wade boo xoolee euh, dañ dem ba ci biir opinion bi changé parce que opinion bi gis ne. Mm-hmm. lii nii ñu nekk di metre en branle contre Karim Wade euh, même si le fondement au début jàppoon nañ c'était légitime injustice la Khalifa Sall ñu jàpp ne injustice la ñëpp taxaw nii. Macky sàll ak nguuram taxaw na le ñu ñëw ci Ousmane Sonko. au début ñu bari bañ ko rajee ñu ne injustice la ce n'est pas c'est pas ce n'est pas normal euh, yi di accumulé wu dossier yi di accumulé mais mu dem ba ci biir opinion bi dafa diviser mm-hmm. aujourd'hui ce ne pas tout le monde ce ne sont pas tous les journalistes qui sont à l'aise mm-hmm. pour défendre Ousmane Sonko mm-hmm. te loolu dafa am lu ko lu ko lu ko waral nan ngay analyser ce ce ce phénomène là où tu dis que le pays est, est, est fracturé mais mais c'est c'est même l'opinion euh, qui est divisée. Commençons par fi nga fi nga commencé sa analyse et j'aime bien cette cette progression dans la pensée bi ñuy ñëw 2012 avec ce beau slogan malheureusement qui n'est resté qu'à l'état de slogan c'était beau parce que c'était il fallait vendre un projet politique pour jaay ko sénégalais ñu fal leen parti la patrie avant le partie bi ñu toogee man j'avais di et je l'ai écrit dans mon livre Macky mooy ki gënoon am ay ressource politique pour gouverner le Sénégal ci façon boo xam ni ça aurait été inédit te tey mooy li may wax génnam da doon rafet bu demee New York gaa ñi tàcc ko parce que dafa amoon ay ressources ñaar au moins benn bi moo doon les assises nationales en ter en terme de de profondeur de d'un projet politique amoon na bosam muy muy yoonu yokkute mais mu ñëw fekk fi loo xam ni c'était déjà prêt en terme de projet politique pour le pays très ambitieux transformationnel amul quasiment lu ñu bàyyi woon mu nekk ressource bu mu mënoon téye téye na ko sax ba ñu foog ne dina ko appliquer mu def réforme CNRI demandé ñu jox ko yoo xam ne bu ko defoon de déconsolidante ya nga doon dégg avant on aurait reconsolidé moom dina ju gouverner ci gouverner bu ñoŋ parce que séparation des pouvoirs dana am ak équilibre yu bare bare bare après yoo cité ci kaawu justice bi ba ci sonk ba yooyu yooyu doon na mën a ñàkk. bu fekkoon il avait fait les choses en amont donc benn ressource boobu sur les assises mu jël ko torpiller ko deuxième ressource bi mooy tout le combat que nous avons dans le M M euh, M23 à l'époque loolu su fekkee dans les assises il amoon na ressource intellectuelle yeeg projet politique bi assise nationale yi amoon na force politique bi euh, kii bi euh, M23 mooy jeunes yi engagement boobu ñu génne woon ba teg ko au pouvoir ne léegi on est capable de tout faire avec ce président boo xam ne jox nañu ay promesses mais benn at la ci teg ñaari at ñu gis ko euh, ñu ñu ñu trahir l'esprit des assises nationales ñu trahir ñoom seen propre esprit ak seen projet politique bi ñu proposé woon sénégalais notamment sur la gouvernance ñu gis ni ñu doon def lu mel ni euh, CREI en visant une ou deux personnes et en rejetant tout le reste ñuy jëlaat leen recycler leen ñu gis ñu indi ay nag ñu am ci yaakaar ndekete yow ils ont tiré la substance bu OFNAC du mën a def liggéey mu ma nekk nekk genre coquille vide on a dit mais ils vont faire la même chose mais loolu faiblesse boobu processus d'affaiblissement des institutions c'est comme si dafa dafa ni dinañu changer réew mi avec ou pas de bonnes intentions bi mu toogee mu ne puisque téye naa levier yi je vais pas scier la branche sur laquelle je suis assis damay def comme ni ñeneen ñi doon def mais loolu moo tax justice bi amul indépendance bi mu waroon am alors que waroon nañ ko mën a def loolu moo indi quand maintenant il décide pour des raisons politiques de s'attaquer à l'opposition en le faisant deux fois ci Khalifa Sall ak Karim mu jàll parce que le peuple n'était pas préparé à faire face il non benn yoon évidemment mais dama doon citer Khalifa Sall ak Karim Wade mu def ko deux fois benn bi Khalifa Sall benn bi Karim Wade ñaar yooyu mooy deux yi ma wax mu njëkkee ko pour écarter des opposants c'est passé facilement parce que l'opposition n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui le n'avaient pas ce niveau de préparation pour faire face et peut-être que ces acteurs politiques yi mu attaqué woon aussi amuñu woon ce niveau de soutien populaire wala ñoom sax la volonté de se battre pour dire du ñu bàyyi ñu rey ñu dans une démocratie boo xam ne le droit ne permet pas qu'on nous qu'on terrasse ou qu'on nous disparaître mu jéem ko parce que yomb na deux fois mu jéem ko une troisième fois sur Ousmane Sonko et c'est là qu'il a buté